Ndeye Coumba tey la sa xol di sedd ci axe tey ngay xam may kan man. wuy ma comme que yow nga ne mënoo wax ak axe toogal fii nag nga fanaan fii ba keroog axe di la jox nga may mën a jox sama dépense dooga mën maa fekk ci biir néeg ba fanaan ko loolu laay def xoolal li ngay wax Ndeye Coumba fii lay fanaan man du dëgg Ndeye nag jot na nag nga xam may kan nag jot na nga xam may kan man ngay man ngay fanaan loo man di ma wan nii yàlla kër gaa ngoog man lépp naa plan yaa jëfaat Seydou Lo faatu yàlla aw yëpp a ngi li lan man ngay laaj lu nga yor non ëmb laa xam lan la ah, gis nga mboolem lu ma amoon ci ay bagages mi ngi nii ma yow ba mu dëgër mais xanaa da ngay fóoti kon ah nga ma déggee yow waaw samay bagage laa bëgg a jël démb police ni ko fa teg man ma ñëwaat gis nga bu ma ñëwaatee ak li ma bëgg def man man xam naa dinaa fekki bagage yi police laay fanaan tey xoolal non dafa nang xoolal gis nga mu sa noon muy nit gor kenn du ko yóbbu police lan nga bëgg a def wax ma ko man incha allah dinaa la teg si axe. da nga ma bëgg a teg si waaw dama la bëgg a waaw rendez-vous léegi léegi. xaar ma. yow ko génn xaar ma ak li ma bëgg a def yow. non loolu man maa ne toogal xaar. non bàyyi jóg non xoolal xoolal may jéem a dóor. bàyyi may jéem a dóor. ma lay wax lan ngay def nga may dóor. xaar ma da ngaa ñeme. taxaw xaar ma. waaw lan nga bëgg a def ma teg la si axe. waaye yow xaar ma rek man maa la ñaan loolu. tey ngay gi yow yow yow. non defal naa ko. xooloon waaw. bàyyi samay bagage non defal naa ko. bàyyi samay bagage. xarit nga yow tamit sama xarit nga lan ngay lan nga bëgg a def lan nga nar a def. da koo bëgg a xam. waaw. bàyyi samay bagage. xaar ma rek bu dee góor yàlla nga yow. soobee yàlla man kay xam naa ni problème amu leen ci dara kay <laughs> bisimilah. ayca. Hmm? na ngeen def nag. Hmm. alhamdulilah na ngeen def ak coono yi. alhamdulilah kay. tabaarkalla hmm. kay. tabaarkalla yéen a ngi xool waa ji kii day kii ni ngeen ko gisee nii. sam àndandoo démb dee ngi nii. kii nanu de. akanoo yàgg ma ak moom. jàmbaar jii de problème bu ma mës a am na ma njàq gu ma mës a am rek génn na ma ca. waaw man de ponkal mi. Eh, Baye yow kon reykatu picc nga. loolu bu fekkente ne tàngaay wi danga yor ganaar di wër di jaay ba mu faatu yàllaaw ci say loxo. ma dóor la bal nu rabi la yàllaaw. Baye banaa man moom banaa. da ngay bàyyi. waaye sama jarbaat boobu Demba Joor moo ni ma yow daal di jaay jaar naa ci eh, gone googu ñuy wax Souleymane mm. jox ko ab enveloppe. ba daw na yóbbu ko ca magasin ba ca Baye Ginaar. wax na dëgg maa ko fàtte woon di. da dama ni woon dama lay woo téléphone sax. waaw waaw waaw. pour jox la ko wax na dëgg de. démb damaa guddee nag. wax na dëgg kay. démb damaa yóbbu ginaar yi ñu ne ma naa ko rey naa ko suqi naa def yëpp. ah man de lii xawma lu mu rek. bu doon fële dañ naan dégueulasse ceebu jën laa añee waaye fi ne de laax laay géex eh. man mi damaa defen dama damaa sécurité yëguma ko de mu ngi noonu da ngay naan xasum dund gi yooyu yëpp da koy dindi ah, moom kay jommal na ma torop ah? lu ma lekk rek len ma fi bu ma añee woon laax mhm. di géex ceebu jën bu ma añee ceebu jën di géex laax bu ma añee mbaxal di géex suum waaw waaw waaw man daal si li ma dal daal xaw ma waaw man ni eh, yow laa xaar nii de mu ne enveloppe bi juróom-ñaari junne la di. yu wow ko nga kay. ana juróom ñaar la trente-cinq mille yu manqué wul dërëm. waaw ah maa dagg juróom-benn yi. teg ko fa. ñetti tablette yi ne lii tegewun fii sans wet. nga ni ko cas dafa ni naan duma la. Diop yu bëree bëri dama koo xam ne patt ak moom. bu la ma déglu ma rek. xame ma ne xame nanu man yu bëri dama koo xam ne muut ak moom man ba ñetti tablette ya buusee ma xool dal wa sama rakiis wii la. table yu ñu sàcc noo koy noo koy xamee ci samay tànk Jóob man ngay waxal lu waay rëdd rek xam naa ko lu waay tracé xam naa ko loo mbiib xam naa ko waaw yéen yi ñetti tablette yi ñaata la mani ni déglu ma rek ñetti tablette tablette bu ne fukk la ñetti tablette yi di ñaata maa la wax loolu ndax dégg nga ko ñetti ganaar ya nga doon réeree ca kër ndaw sax ganaar gu ne juróom-ñaari téeméer ku wax loolu ak téeméer ca ganaar ya fekk nag junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk calculeel desel bu dee desel naa la weccit suba ma jox la lan mooy su dee desel naa la lii lan la nii yi fi dëmm yii mu ne noonu naa dagaa loo wax nga ni ana lan nga wax mu ne noonu buy ga kaay jóob kaay ana lu mu wax noonu léegi nii kon kon kon tiire nga ma ko ba pare ma ne ana lan nga wax maa yàlla yàlla nga gudd fan yal na yal na nga fi euh, wutal ma ñaari këyit téeméer fële téeméer. ñaar téeméer képp laa la war a jox. nga ni téeméer doo nga ca desoon. nga ni nga ni lan lan képp maa juum téeméer képp nga dese. kan ngay jox téeméer. téeméer yow mii nii. téeméer téeméer nga dese. ci waaw waaw téeméer nga dese laa wax. xoolal xoolal xoolal xoolal lan. waaw nooy def ba ma ne boo ko téyewul ma lekk maa ngi doog a xam na li tax dof day naan nguuda Cissé ngi jeel mani ak Aliya ñoom ñëpp man man xam man maa leen di fekki man ku leen di fekk ndayam ku la <coughs> ba nga laal sa na yaay. waaye déglu ma ma xal ma xal jubloo ma la. yow deewu kañ di jubloo ma la. <laughs> yow deewu kañ di nga ko dee. jubloo ma man dama laa faale. defal na non man dóoram. man dóorama de. man dóoram looy def looy def bàyyil ba mu laal la rek. dóoroo looy def. xoolal xoolal man jël laa jëm man. man it jël laa jëm man. man ngay jox téeméer. man it demal man ngay fay téeméer. demal sàmm noor. tey ngay lan man ma waxal waxal man daanu. Ah, ah. daanu lépp lay def laa la wax. daanu daanu daanu daanu man daanu. waaye eh, eh, kër jàmbur ngeen di dugg di yoole. ñàkk fay. kër jàmbur ngeen di yoole ku ne naan ngal ngal ngal ngal. Jóob ñëwal damay dem. ma ne koola. bu fekkee da nga koy lijjante man ngay njëkk a lijjante laa lay woy day jàll des ma jàll pie nga jox ma suma xaalis si suma loxo. Eh, xam nga ku ma xamul waaye yow xam nga ma yow. sama xaalis sax mu koy jox yow xam nga ku ma xam nga. xamoon ku ma xam waay ja jàlla te waay jàlla nga mel ni alif jiite arab sama kaay fi ma ko kenn lay waroon nga ma fa dinaa ñëwaat léegi sama kaay sa yeel yu gudd yow moom xaw ma kan nga ma ñëw ay toorkal bari nga kàttan ba de waaw ah, wi ma de ba waaw fetal gaa nga poulailler ba sax. nga ne lan ñëw nga poulailler ba. fetal gaa nga poulailler. ma nga poulailler ba. Ah, waaw fii nag sama kër. fetal ga moom ngunu la. xam nga lu ma bëgg xam. Ah. fii sama kër la soof. mu ne lan. dina caqat. ah Diop man ngay génne man a bàyyi de. wala ma ñaf la ay leket ba nga ah. saw. Diop koy saaga. waaye koy dóori leket ah bak nga jàpp man joob dóor. bopp baa ngi nii man bopp baa ngi nii xeer dal na ci doj. man man kuur ak it jaay seeg paaka ak lu ñu dóor nañ ko ci bopp bi bopp bi mooy ah tëb ma ne dóoral Diop. dama faale lekkati bopp. dóoral. yëgoo ko yëgoo ko yëgoo ko nga mi a ah, dóor nañu ci ay bal. Diop ko nga mi may tot sa lu bon may tot sa lu bon nga àndal li bàyyi li fi ngay jàpp bul jafandu da ngaa dëgg bul jafandu nii ku ma dajale ma samay bagage nii nii ku ma daji. ma seen lang neex na. birank yi seen lang neex na jaaykatu nen yi seen lang neex na jaaykatu ganaar yi seen lang neex na dama ko dama ko bëgg a seet jaaykatu ganaar yi seen lang neex moomoo loolu la waroon a wax mburoog may neex mburoog may soo ko bëggee da ngay dem samay ga bi ñun ay nen la ñuy offrir lii moom la may moom la ñuy toj defare ko mayonnaise ñëpp mën a càpp nun noo ko offrir may ga offrir la tudd lii jaay moroog may na si altine talaata yow yaa doon fii ci ginnaaw moroog may na baax na man dama fee jaaroon rek maa ngi dem dama fee jaaroon toogal ñu waxtaan damay liggéey amoo moroog may na yi boo ko diwee fii da may na yi yi añ nanu kii la yow asalaay sama yaay génn na àdduna. ah dégg nga. parce que papa deewagul. sa baay ngi fi. yow ah. sa baay sa baay la jur. sa baay laa wax yow. sa baay ngi fi. du ma xaalis. non yow kon ko du ma xaalis du ma xaalis. waaye waaye yaa ngi may gëj yaa ngi may gëj du ma xaalis. waaye ñun ay na ne ki gën a. xaalis. du ma xaalis. kon bi benn agent secret amu fa. du ñëw tamit duñ bokk maa maa ngi yow kasal am nan na rees ak jàmm dégg nga dafa tuuti xoolal yow xaalis yaa may gaañ lan la la li xaalis su bàyyi gànnaar li xaalis eh, ah, ah yaa ngi ma xaalis yi la kuy kuy ndey unki maa ngi yow ndey unki duñu ndey unki jël soo bi jugal. man maa ngi <laughs> man nga man ngay def. jugal jël soo bi ñu day unki. jugal ñu day unki. li lan laa yenu lii. waaw yenu ñu day unki après man ma yenu ñu day unki yenu. xanaa fii xanaa fii amul benn responsable. pour lan mu ñëw bokk fi du bokk de day unki man ak yow kese la. waaw bu ma ku ñëw tamit du bokk maa yow kese la. mooy day unki tournée rek ma wala. booy. eh ba li nga def dara wóor ci ne ni ma ndeyu. aywa. looloo ah, ah, ndeyu. looloo ah, ndeyu. li ma looloo ndeyu.